الفايدة اف ام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان الفايدة اف ام ci itikaaf itikaaf ci fukk ju mujj ji ci weeru koor ak itikaaf mën nañ koo def ci mbooleem jumaa yépp ndax li yàlla wax ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid bu leen jonjoog seen jigéen ñi te fekk yéen yéen a ngi itikaaf ci jàkka yi wala ci jumaa yi kon jagleelu ko jumaa yonent bi jagleelu ko masjidul haram jumaa yépp mën nañ faa itikaaf mu ne solo nañ jëlee ci abdullah ibnu amar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كان اعتكاف فك موجي جي كور صلى الله عليه وسلم ألف الفايدة فم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده من الله عليه وسلم سيدتنا عائشة رضي الله عنها سوحنا ينتبي صلى الله عليه وسلم سوحنا ينتبي دانا الاتكاف فكو جمو جي جي شوير كور با باكو يالا دي مومي موم ينتبي صلى الله عليه وسلم موني اي جبرم دم كنتين دي اتكاف فكو جمو جي جوجو صلى الله عليه وسلم الفايدة اف حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صب يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت ليلة وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين الفايدة اف ام سولو نان ابو سعيد الخدري Zubayri radiyallahu anhu mu ne bi sallallahu alayhi wasallam sallam daana etika fukk ci digi bi ci wéru koor wala itikaaf na fukk ji ci mujj ji ben at bam mu ko defé ben at bam démé ba guddi ñaar fukk ak ben te guddi googu ci ëlëk sa la wara mu daal di wax na képp ko xamné ne won né won nañ ma yonent bi moy wax won nañ ma léeg ay partelo ay gis na sama bop ma ngi sujjóot ci ndox ak ban ci suba kon nak na ngeen ko ut ci fukku ju mujj te ut leen ko itam ci guddi yu tool yi mu ne guddi googu asamaan si daal di taw taw bu rëy te jumaa yonent bi mbaar la woon rek ca kaw jumaa ji yëpp daal di senn ndox mi dugg ci biir jumaa ji ba egg ci fi nga xam ne fa la yonent bi di jullee mu ne suma ñaari bët yi xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gis jeexiti ndox mi ak ban bi ci kaw jaam bi ci subaak ñaan fukk ak benn gi nga xam ne ci la waroon a génn sallallahu alayhi wa sallam alfayda fm babul xaaidi turajjilu ras almuctakif xadathana muhammad bnu almuthanna xadathana yaxya an hishamin qaala axbarani abi an aisha radi anha qalat kana nabiyu sal allahu alayhi wa sallam yusgi ilaya rasahu wa huwa mujaayirun fi lmasjid alxaraami fa urajjilahu fa ana xaaidun alfayda fm jigéen ju gis baaxi jigéen ba pare di jaratal nit boppam wala di ko peñal bopam da fek koku mu ci itikaaf mu ne solo don jele ci aisha radhiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na itikaaf di ma yoor boppam ci fenêtre fek mu ci itikaaf ci bir juma ja mom yenen bi mako koy peñal da fek waxtu wo ma ngi gis bax jigen sallallahu alayhi wasallam الفايدة Alfayda باب لا يدخل البيت إلا لحاجة حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج زوج النبي صلى أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا الفايدة FM يلا ننشي من بنتي كنك bunti ku nekk نجم lu may ci aajo joo xam ne aajo ju tat la jëlee nañ ci aïchatu radiallahu anha jabaru yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax nekkoon na moom yonentu bi sallallahu di dugal boppam bi fekk mu ci jumaa ji ma ko koy peñel waaye nag gu mu lu may ngir soxla su fekkee ne dafa nekk ci jamono itikaaf nekk ci jàkka ji sallallahu alayhi wa sallam حدثت رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله وأنا حائض منتي نيت كو نك سي اعتكاف با بري دي سانغو من جيلنا عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم دانا جونجوك موم واي دو جونجوي سي te fekk mu ngi gis baax jigéen moom Aïcha mu ne dan génne boppam itam ci jumaa ji yor ko ko rek ci fenêtre mu ne mu ko koy fekk mu ngi ci itikaaf moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu ko koy raxasal te fekk jamono jooju moom Aïchatu mu ngi gis baax jigéen sallallahu alayhi wa sallam baabul itikaafi leylan حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك bunti اعتكاف بين قدي mu ne ابن عمر رضي الله عنهما mu ne seydna omar radiallahu anhu laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko mu nekke nekkee ci jaahiliya maanaam njëkk lislaam dama nisaroon def itikaaf benn guddi ci masjidul xaram yonent bi ne ko matalal sa nisar joju kon nag rawatina jullit bu nisar dara war na ko matal moom itam sallallahu alayhi wa Alfayda FM. moom itam.